auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa sallama taslima mbokk yi ba tey ñu ngi ci suñu xasida asiru ma al abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru bu Mawlana Cheikhul Xadim Sëriñ Tuuba kaana lahu bi karamihi lbaaxil xadim wa nafaana bihi amin ya rabbal alamin Sëriñ Tuuba wax ne uxaatibuhu bil madxi wa huwa bi taybatin wa inni lahu jaarun hunaka yazuru mu ne uxaatibuhu maa ngi waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii bi mu koy bind ca jamono jooju moom ma ngay waxtaan ak yonant bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga uxaatibu fii fi'lu mudaari la loolu mooy présent mooy daf ko conjugué ci présent kon waxtu wi moom ma nga jàkkaarloo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasalam sallam di ñu nettali mu ne uxaatibuhu maa ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil madxi ci tagg mu ne waxuwa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi taybatin ma nga medinatul munawwara wa inni mu ne taman sëriñ tuba xaadim rasul hunaaka foofu yonent bi nekk ca medinatul munawwara jaarun ab dëkkandoo la lëhu ñeel ko yazuru dëkkandoo boo xamee nag waxtu ne ma ngay dem di ko ziyaara ji eh, mbind mu day waar la mu ne moom mu ngi waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jox joxe ay wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci tàgg te yonent bi kat ca waxtu woowu moom ma nga ba mu ne te moom foofu mu tëdd ca Tayba muy ca Madinatul Munawwara mu ne man Serigne Touba day ab dëkkandoom laa fa waaye dëkkandoo nag bu ràññeeku ci dëkkandoo yi ndax waxtu wu jot simili bu jàll rek maa ngi ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana ahmad alxadim radiallahu anhu mu ne uxaatibuhu wa huwa alwasilatu sarmadan wa fi lqalbi minni min rirdaahu sururu mu ne uxaatibuhu maa ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi waxtaan ak moom waaye nag kaay ma xamal la wa huwa te moom yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam alwasilatu moom mooy sëriñ bi alwasilatu mooy ci ki ma jokk alwasilatu mooy ki nga xamee ne moom mooy xëcc alwasilatu mooy ki nga xamee ne moom mooy escalier bi may jaar sarmadan ba faw nag moom soxlawuma beneen sëriñ soxlawuma beneen yoon soxlawuma keneen yonent bi sallallahu alayhi rek ba faw nag mu ne wafil xal bi te ci xol bi nag min nii lu bàyyee ko ci man sururu am mbég la min ridaahu boo xamee ne mu ngi bàyyee ci bàyyeekoo ci ngërëmu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ngërëm nit ñu gërëm la dafay neex waaye rawatina ngër maane boo xamee ni ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la jógee te daf lay woon ne ngër maane boobu ngër maane suñ borom la subhanahu wa taala ndax yàlla moo ko wax ne laa yantiqu anil hawa in huwa ila waxyun yuxa moo tax euh, Sëriñ tubaa wax ne wa fil qalbi minni min ridaahu sururu xam nga xol bu baax xol bu am gërmaane dafa baax moo tax gisoo ñuy sopp koo xamee dafa dem màkk buy wër kaaba gi muy wax rabbana laa tuzi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab loolu dañ koy sopp lool ki nga xam ne dafay wër kaaba gi mu koy wax xam nga ñetti façon bakkan ñoo am te bakkan yooyu xol bi moo leen di commandé mooy an nafsul mutmainna an nafsul lawaama ak an nafsul amaara bi suu nga gis ne yooyu yëpp nag nga xamee ne moom mooy commandé doomi aadama Sëriñ tubaa moom gis nga wax ne ne man sama xol bi kat xol bu teey la ndax xol boo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko gërëm boo demee ci suratul fajri muy surat numéro 89 boo demee ci vingt 27 yàlla mu ngi naan yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kooku mooy bakkan bi nga xamee ne dafa teey bakkan bi nga xamee ne suñ borom subhanahu wa taala gërëm na ko bakkan bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na ko te loolu dafay feeñ ci biir xol bi te dégg nga sëñ Touba Xaadim Rasul nee na moom loolu am na ko mbokk yi euh, Maulana Xaadim Rasul daal di wax ni wa qaatabtuhu fi lbahri iz sayri intaha ila llahi wal muniru Sëriñ Tuuba mu ne wax ji ma wax nag ak yonent bi sallallahu alayhi waxtaan ak moom mu ne bum la jaaxal ndax lu juuti luy sax daanaa waxtaan ak moom kaay ma nettali rek waxaatabtuhu waxtaanoon naa ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil baxri ci waxtu wa nga xamee ne maa ngi nekkoon ci géej gi is waxtu wi nga xamee ne intaha jublu na sayri sama dox ilallaahi jëm ci suñ borom subhaanahu wa wal muxtaari wal muxtaaru ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa te moom yonent boobu nag mu niiru mooy aji leeral ji képp ku am lumière rek ci moom nga ko jëlee ndax ñun ñëpp ëmpale wuñ ne suñ borom subhaanahu wa taala moom bindul dara wala lenn ngir boppam lu dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad rek la bind ngir boppam li ci des lépp nag ak lumoo lumu wala kumoo kumu suñ borom subhaanahu wa taala daf ko bind ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëñ Tuubaa wax ne man day doom naa waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may wax muy tontu muy wax may tontu waxtu ba ma nekkee ca géej ga te boobu nag sama dox sama lépp nag mu ngi jublu parce que intaha fii bul bul wax mukk jeex na déedéet ndax dox bi muy dox ci yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi loolu du ma sa jeex kon nag bul wax mukk intaha jeex na doo ko firee noonu danga naan intaha jublu na ilallaahi jëm ci yàlla wal muxtaari ak yonant bi sallallahu alayhi wa wa huwa te moom yonent boobu almuniiru mooy aji leeral gi ndax boo xoolee ñun ñëpp ci bopp xasida bi mu ngi naan asiru maal abraari xiina asiru wazanna al ida anni hunaka asiru ndax boobu noon bi kat mu ngi jàpp ne kii kat prisonnier la kii kat ku ñu jàpp la te moom waxtu woowu kat mu ngi dox ànd ak ñu baax ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saxaaba yi ànd ak ñu baax ñépp ñi nga xamee ne suñu borom subhanahu wa taala def na leen ay almbiyaaw ak i ak i ak ak i ak mursal mu ne ci waxtu woowu nag kon nag ci waxtu woowu moom lay wax naan is sayri intaha ilallahi wal muxtaari ndax boobu moom mu ngi jublu ci yàlla pour liggéeyal ko di liggéeyal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ci waxtu woowu lay wax ne doom na waxtaan ak yonent bi eh, sallallahu alayhi wa sallam ndax boo xoolee ci darsi bi mujj rek mu ngi naan rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu mu ne man de ñi ma àndaloon nag ci tukki mi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon samay eh, contestant yi ma àndaloon nag mu ne contestant boobu mooy téere yàlla bi ak yonent bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi kon nag loolu bu waxee ne wax xaatabtuhu doom naa wax ak ñoom fil baxari ci géej gi kon loolu luñ mën a dégg la ndax nit képp koo àndal rek waxtaan ak moom ba tey dinga gis ne jublu bi nga xamee ne moom la doxam bi wala tukkeem bi daal di jublu suñ borom subhaanahu wa ak yonent bi boo demee ci suuratu safaati muy surat numéro 37 di nga fekk yonent yàlla ibrahim mu naan wa qaala inni zahibun ila rabbi sayahdini mu ne yonent yàlla ibrahim wax leen ne man day maa ngi dem jublu ji sama borom subhaanahu wa moom day mooy ki nga xamee ne dina ma jubal waaye ba tey di nga fekk ci sootul waaqia suñ borom naan wa saabiquuna saabiquun ulaayika al muqarrabuun ñi nga xamee ne ñoom ñoo jiitu di dox ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun na ñooy di nga fekk ne mooy ñi nga xamee ne suñ borom subhaanahu wa taala daf leen ni jegeel boppam ba tey di nga gis ci dox yooyu ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak naan subhaanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil xaraami ilal masjidil aqsa allazi barakna xawlahu loolu suratul israa la mooy numéro un mbokk yi sëriñ tubaa ne nabiyal huda taabat li nafsu haahuna wa anta bi madxi ka salaati jadiru mu ne nabiyal huda yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yonentam njub mi nga xamee ne moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam yu ànd yépp ak njub la moo tax suñ borom subhaanahu wa boo demee ci suratul isra'i mu wax ne wa ma manaa annaasa an yuminu is jaahumul huda nga gis ne kon is jaahumul huda mooy moo tax sëriñ tubaa njub bi mu ne taabat na liya ñeel bakkan bi haahuna fii ci àddina mu ne fii moom bu kenn xalaat safaan ndax yonent bi salaay salaam mooy ki nga xamee ne moom moo teeyal sama bakkan bi mu ne wa anta te yow yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñun ñëpp xam nañ ne anta moom koo ko wax rek mooy yaa ngi jàkkaarloo ak moom mu ne bi xii ci sama tàgg bi jadiiru ku ko yeeyoo nga mu ne yow yonent bi sama tàgg de ku ko yeeyoo nga yow daal rek yow yaa jara eh, tàgg mu ne kasalaati mu ngi mel ni rek ni ma julli waree ni ma julli waree noonu la ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di waree moo tax ci beneen xasida mu ngi naan li xubbi rasuli lazi sarmadan usalli alayhi bi madxin malih kon nga gis ne moom tàgg yonent bi sallallahu alayhi loolu farata la ci moom mu ne fasal xaalixi rawdal ida lii maan bima aubu bihi lil barri anta naziru mu ne fasal laajal ma fasal ñaanal ma yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaalixi aji bind sama te kook mooy suñ boroom subhaanahu wa taala mu ne yow yonent bi maa ngi lay ñaan nga laajal ma sama boroom ñaanal ma ko dal ida lii mu tàggatal ma noon wi mu tàggatal ma noon yi ñeel ma mu tàggatal ma leen maan nag ñoom ñépp nag bi ma ci tàggat boo xamee ne nag a uubu dinaa ci delloo bihi ci moom lil barri ci aji baax ji muy suñ borom subhanahu wa taala anta yow yonent bi kat naziru yow ay yaay aji waare gi yaay aji xuppe gi yaay aji delloo doomi aadama bi nga xamee ne dafa nekk ci njubér yi nga delloo ko mu nekk ci njub mu ne yow yàlla daal maa ngi lay ñaan yow yonent bi maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma suñ borom mu tàggatal ma noon yi tàggat goo xamee nag dinaa ci sante suñu yàlla dinaa ci sante suñu borom subhaanahu wa taala ba dellu ci moom te gis nga lii dëgg-dëgg wax ju rëy la yàlla ñu ko yàlla fayal moom xaadim rasul radiallahu anhu mbokk yi yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp def ko ci yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa